daayiratul fadli buñ fornome war ngay sant yàlla ñun la sigil kësaloodam sidi baram aoudubillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim malik yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddaalliin amin allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatih lima uliq walxaatimi lima sabaqa naasir xaq bilaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim radiallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim ya himmata cheikh yi xudur lana bi hada almahdari wal taati fii bi nadratin taati lana bi zafarin ñëw léegi suñu darsu nasiha tey ñu ngi gis baabu tasawuf ah, buntu tasawuf incha allah baabu tasawuf ñu ngi jëlee ci ustaaz aba alin daqaaq wax na ne safaau mahmudun bi kulli lisaanin tasawuf daal mooy sell boo xamante ne dañ koo gërëm dañ koo sant ci bépp làmmeñ waaw mu ne wa didduhu contraire am nag mooy ka duuratu wa hiya mazmumatun mooy tilim tilim contraire u safa bi nga xam ne moo firi sell mu ne contraire bi nag mooy kadura mooy tilim tilim tilim tilim boo xamante ne wala moom tilim tilim mazmumatun lu ñu ŋàññi la waaw lu ñu ŋàññi la lu ñu xas la nekkul lu baax waaw eh, nañ ci Yazid bun abi ziyad mu jëlee ci abu juhayfa wala abi juhayfata wax na ne xaraja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mutaxayiru lawnu fa qaala zahaba safu dunia wa baqiya alkadru falmawtu lyawma tuxfatun li kulli muslimin eh, abi juhayfa radiallahu anhu dafa wax benn bis mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xëy benn bis génn mu ne kanamam soppeeku nag maanaam meloom couleur am bi soppeeku mu changé ah ñoom itam ñu xaw a xam naa mel na ñuy jaaxle mel na ñuy posé question lu tax yonent bi mel nii sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen sell ak àddina dem na léegi tilim tilimu àddina moo fi des mu ne dee nag war nekk yitte képp koo xam ne julit nga wala nekk sa soxla dégg nga ndax tilim tilimu àddina moo fi des loolu nag boo ko déggee mooy waxtu wuñ demee ba jikko yu rafet yi jeex waxtu wuñ demee ba jikko yu rafet yi amatuñ ci kenn kuñ ci référé waxtu wuñ demee ba jikko yu rafet yi kenn yoratut ko su boobaa dara desi tut fi ndax islaam euh, diine la boo xamante ne jikko rek moo tax mu ñëw ak defar doomu aadama ba mu nekk nit kuñ ci yonent bi jàngal nañu ko innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu tedd yi waaw loo xam ci àddina boo xam ne jikko bu tedd jeex na fi loo xam ci àddina boo xamante ne jom amatu fi loo xam ci àddina boo xamante ne kersa amatut fi loo xam ci àddina boo xamante ne kenn wegetut kenn kenn respectetut kenn kenn xàmmetut kilifay kenn loo xam ci àddina boo xamante ne kenn ku nekk sa bopp nga doyloo wëlis keneen ki amoo njiit nangoo am kilifa loo xam ci àdduna boo xamante ne da ngay wax ne man julit laa te duma ma yàlla da ngay wax ne man taalibe tijaan laa te du ma wérte da ne man taalibe Cheikh Ibrahima laa te du ma def samay dog dégg nga te du ma ziyaar ji sama sëriñ dégg nga loo xam ci boobu àddina kenn ku nekk doy la sa bopp dëgg kon sell ak àddina dem na waaye tilim tilim moom moo fi des léegi nag loolu yow nga dem dee mu wër na ne fekk nga yàlla moom mooy tane yaa ngi dégg nga des fi dégg nga àddina boobu di la gën a tilimal bakkan boobu di gën a yokku daa iman euh, bakkan boobu di gën a yokku daa iman ci tilim tilim te bakkan bu tilim du jëmee fenn boromam lu dul dégg nga safara la jëmee boromam ndax alxuraan wax na loolu alxuraan wax na ne qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha euh, texe ki nga xamante sellal na bakkanam waaye texee dina ki nga xamante ne itam tilimal na bakkanam kon bakkan boobu li tax muy tilim lu tax muy set loolu yëpp ci bakkan la rek la ci ci jikko rek la su jikko yu ñaaw yi nekkee ci moom rek mu tilim waaye su jikko yu rafet yi nekkee ci moom rek nga gis mu mu nekk bakkan bu tedd dégg nga bakkan boobu dégg nga moom la alquran doon junju naan irji'i ila rabbiki raadiyatan mardiyatan fadxuli fi ibaadi wa duxuli jannati te loolu yëpp li la ko yóbbee mooy tilim tilimu àddina ñu bàyyi ci bàyyi ci bàyyi ci xel eh, moo tax laaj nañ Abu Muhammad Jariri radiyallahu anhu ani tasawuf ñu laaj ko lan mooy tasawuf mu ne a duxulu fi kulli xuluqin e, sanniyin wal xuruju min kulli xuluqin danniyin mu ne tasawuf daal mooy nga dugg ci bépp jikko boo xamante ni jikko bu kowe la jikko bu yëkkatiku la mu ne waaye nga génn ci bépp jikko boo xamante ni jikko bu suufe la mu ne loolu daal mooy tasawuf kon gis nga li ma doon wax sànq ne islaam diine rek la xam ma jikko rek la Seydina Omar mos na ko wax mu ne xanaa xamu ne diine islaam dañ koo ñagee kersa mu ne waxtu wu ngeen ñàkkee kersa rek dégg nga ñàkk ngeen diine waaw loolu itam moom mooy tasawuf tasawuf itam du dara lu dul yar sa jikko bi yar sa bakkan bi wëlis muy def naka su noonu wala muy jeng jëm ci leneen lu dul yàlla waaye mu nekk bakkan bu sell bakkan boo xam ne day jaam boromam day dellu ci boromam yore jikko yu rafet yaa ngi dégg loolu moom mooy dëgg-dëgg itam tasawuf moo tax mu ne ad duxulu fi kulli xuluqin dégg nga sa niyin dégg nga wal xuruju min kulli xuluqin daniyin dégg nga maanaa e, dugg ci génn maanaa dugg ci mboolem jikko tasawuf mooy nga dugg ci mboolem jikko boo xam ne jikko bu yëkkatiku la jikko bu kowe la waaye nga génn ci mboolem jikko boo xamante ne jikko bu suufe la nga loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a nañ ci aba muhammad marishi mu ne dafa laaj sëriñam ani tasawuf dégg nga sëriñam ne ko sami'tul junaydu waqat su ila anhu mu ko ah man de mus naa dégg imaamul junaydi ñu laaj ko moom itam ci wàllu euh, tasawuf mooy lan fa qaala Junayd mu ne huwa an yumituka alxaqa anka ju maanaam tasawuf daal mooy eh, eh, dëgg rey la ci sa bopp waaw maanaam dëgg rey la ci sa bopp ci sa bopp wa yuxyika bihi waaye mu dundal la ci boppam waaw dëgg moo lay rey ci sa bopp yow waaye mu dundal la ci boppam maanaam dëgg bi bu lay rey na fekk ci sa bopp la la reyee ba noppi waaye boo koy dund nag na nga ko dund itam ci yàlla subhaanahu wa taala parce que yàlla moom mooy xaqu dégg nga loolu nag waxtu woo ko amee day gis ne danga nga am jikko yu ndax suufiyanke yi jikko yu sell lañ amoon jikko yu yëkkati ko lañ amoon suufiyanke daawut iñaan suufiyanke daawut bëgg daraja suufiyanke daawut bëgg njiit suufiyanke daawut bëgg àddina suufiyanke daan laqatu luy gën a bëri ci ay maqaamaam suufiyanke daawut euh, euh, euh, même am na ñoo xam ne dañ daan buur yi sax yaa ngi dégg di daw buuri du nengoo jaxasoo ak buuri dégg nga parce que dañ daan wax ne jaxasoo ak buur dafay yóbbu rek sa leeru sa sa leeru wilaaya dégg nga jaxasoo ak buuru àddina yi day yóbbu sa leeru wilaaya wala dootuñ gis yonent bi sa alayhi wa sallam ñu bëri daan nañ daw ci loolu noonu waaye tey sufiyanke tey yi dëgg-dëgg bëgg nañ àddina sufiyanke tey bëgg nañ daraja sufiyanke tey yi bëgg nañ fës sufiyanke tey yi kenn ku nekk ci sa bopp nga nekk suñ waxee dëgg kenn ku ne ci sa bopp nga ne sa bopp bi itam bu fekkoon ne sax daa ngi nekk sa bopp ngir luy rey sa bakkan bi déedéet waaye yow luy suuxat sa bakkan bi rek waxtu ne ci ci loolu nga ne te loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax nu ñu reyee suñu bakkan yi nga xamante ne mu ñuy xiirtal jëme ñi ci loo xamante ne dëgg-dëgg du lu yàlla gërëm su ko defee ñu ngi tënk fii nii dégg nga euh, darsu tey bi di euh, euh, digal suñu bopp digal mbokk taalibe yi ñu gën a tudd yàlla lu bari parce que tudd yàlla lu bari dafay rey bakkan waa tudd yàlla lu bari dafay rey bakkan foo fekk suuf yi bu bari wax xamal ne du tudd yàlla waaw yàlla lu bari kuy tudd yàlla lu bari du bari wax du dem ba da ngay teel a wax sax waaw tudd yàlla lu bari itam euh, boo waxee dinañ xam ne kii mu tudd yàlla parce que sa wax dafay saf yàlla sa dënn bi itam nit ñi dañuy dégg ni ci yàlla di riiree waaw kon nañ bàyyi xel ci loolu noonu wax ju bëri bakkan bu dund rek la wax ju bëri bakkan bu dund rek la dégg nga su ko defee ñu ngi dénk suñu bopp loolu di ko dénk mbokk taalibe yal na yàlla dafa ñu njub wa ma zalika ala llahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi subhil qamisiha علينا بخدم لكونه إرنا ثابت هام هام يا أسري في أيام أتى الإمام جلاء لشيخ جيان أمنا بخدم لكونه إرنا هبرت الجنة تهتف الراء الأهل من كرام وفيه موت الهواء بشيخ تجار أنينا بخدل لقوله دائرة الفضل دائرة الفضل فنمي ونحن كرتيا يا الله نلقي جل نلقي جل الله جل الله سيدي برا